septembre 2024 comme ni ñu leen ko waxee également donc am nañ fi ñaari gan donc dañu waxtaanee actualité waaye balaa boobu euh, dañu ñëwaat ci Amadou Mokhtar Mbow ci omage yi euh, soxna Aram euh, Gaye Diop gis nga nekk sociologue donc moom la ñu fas yéene waxtaanal ci kanam tuuti waaye dama lay laaj d'abord ci Amadou Mokhtar Mbow yaa ngi ko doon wax sànq waaye gis nga ni yéen a kaay xëyee daanaka ci moom nekk lu am solo rendre ko hommage également nan nga gisee li nga xam ne mooy génn àdduna kii di Amadou Mokhtar Mbow jaal sénégalais yi jaal aussi Louga mm-hmm. parce que defe naa ne amalu Makhtar Mbow kenn ci doomi Louga yi la mm-hmm. di jaal waa Louga di ñaan aussi son exemple inspiré mm-hmm. génération yi nga xam ne les générations actuelles et les génération futures damay faral di wax ne Sénégal gi ñu nekk domaine boo jël rek am nañ ci ay modèle moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu éducation moo xam ci wàllu et cetera cetera wàll boo jël rek. Mhm. am nañ ci ay modèle te Amadou Makhtar Mbow dafa bokkoon ci kenn ci modèle yi. Mhm. ci parcours am li nga xam ne moom lay jàpp au ci li nga xam ne moom la presse bi wax. Mhm. ñuy fàttaliku ne bi mu nekkee UNESCO. xam naa compte tenu éducation bi mu amoon ndax wax na ne bi muy la mu njëkk a def mooy jàng alxuraan. te alxuraan lépp ci la nekk. mais valeur yooyu mu jàng ci alxuraan valeur yooyu bi mu demee UNESCO daf ko faa wane daanaka boo xoolee li tax américains yi doon ko xeex loolu bokk na ci le fait que mu doon jëmbal les valeurs islamiques di défendre l'islam bokk na ci li nga xam ne moo tax américains yi doon ko xeex la preuve bi mu ko wàccee Hassan II yàlla na ko yàlla yërëm daf ko woo ñoom ñaar ñu ànd créer UNESCO arabe yi islamique tudde ko ISESCO donc loolu defe naa lu am solo la duma ko dégg sax ci presse bi ñu wax ko mais ISESCO tey. Mhm. siège bi nga Rabat nga xam ne c'est l'organisation des états islamiques pour les sciences l'éducation mhm. et la culture mi ngi Rabat te kooku tey ji bu taxawee ci àdduna ñu di ko wax yàllaak Amadou Mahtar Mbow moo tax mhm. donc na li ñuy sant yàlla mooy suñu réew aussi rendre nañ ko hommage bi muy dund c'est parce que dañuy faral di wax ne ñun dañu am tendance. suñuy éro duñ leen célébrer bi ñuy dund dañuy bàyyi ban génn àdduna ñu leen di rendre hommage à titre posthume mais alhamdulilah les autorités de ce pays comprendre nañ ne Amadou Makhtar Mbow exemple la bu ñu war a offrir à la jeunesse sénégalaise ñu tuddee ko université mu fekkee ko ak yeneen ñi nga xam ne au soir de sa vie waroon mënoon na toog di seetaan comme ñëpp mais bi ko Sénégal soxlaa moom dafa taxawaat ci Sénégal notamment les assises jiite ko et cetera ak yu bari yoo xam ne def na ko mm-hmm. donc Amadou Mahtar Mbow daal gàcce ngalaama mm-hmm. tey Sénégal fi mu toll ñun au niveau de notre mouvement sàmm suñu ngor mm-hmm. ñuy wax à la recherche des valeur perdues defe naa bu ñu jëlee exemple Amadou maxtar Mbow dinañ ci gis ci moom ay valeurs yoo xam ne buñ ci taxawaatee suñu réew fi mu nekkoon ci àdduna dana fi delluwaat daal donc loolu laa amoon lu may wax vraiment encore une fois di jaale waa Louga yépp di jaale waa Sénégal ñun sax waa Louga mën noo toog tey di nangu njaal fii. Mhm. parce que Amadou Makhtar Mbow kenn ci doomu Louga yi. dëgg la am na solo bu baax c'est vrai que comme lu ñu wax dundam euh, lu mu jot a def du du jeex ndax euh, génération bu nekk mun na ko mun na ko jëfandikoo Lamine euh, noo ko noo ko gisee comme ni ko waxee waa Louga la yéen itam ngeen bokk Louga nan nga gisee ki nga décès bi ak hommage yu ci am ah, gis nañu les anciens pré anciens présidents Bassirou Diomaye Faye également nekk l'actuel président wax na ko ah dafa war a inspirer génération nan nga nan nga gisee loolu yow. waaw euh, monsieur Mal defe naa ni li Aram wax c'est c'est très ça suffit même. Mhm. pour euh, pour ñu wax dara ci Amadou Matar Mbow. parce que nit la koo xam ni bon ci dundam moo man li ma ci mën a euh, jàngat. Mhm. mooy man mosuma dégg euh, Amadou Matar Mbow ñu ne wax na wax boo xam ni dafa ñaaw dafa jëm ci nit. Mhm. te loolu moo ñu manqué léegi. loolu moo tax dafa war a inspirer génération yi fi nekk tey ak ñi ñëw ëllëg. ñoom duñu ay politiciens mais c' est des hommes politiques. ñu mm-hmm. amal njariñ seen réew. Mm-hmm. beneen bi taxawaayam ci àddina dafa yëkkati Sénégal. bi mu nekkee directeur général de l'UNESCO mm-hmm. mais Sénégal am na benn rayonnement diplomatique boo xam ne moo ñu topp ba tey. beneen bi ci topp mooy bi mu diriger la commission nationale de réforme des institutions la CNRI. daf ko def ci benn élan boo xam ne. maanaam bëggatul dara ci réewam li mu bëgg réew mooy réewam am réew réewam jëm ca kanam nit ñi ànd jàmm am fi mais ku mel noonu tey bu dëddoo Sénégal moo ñàkk Louga ñàkk na comme ni ko Aram waxee euh, ku de xewar la dëkk amado Matar Mbow ñun dañ koy ndamoo ci ànd ak waa Sénégal gépp di ko ndamoo mais tey dañu amal njaal àddina bi sax laay wax parce que Amadou Matar Mbow xam nga UNESCO dañu ni euh, patrimoine mondial daf koy préserver di ko protéger yu demee noonu. Mhm. mais tey ko ci boppam patrimoine bi mu bi mu war a préserver mooy Amadou Mahtar Mbow c'est-à-dire l'homme est parti dem na. Mhm. mais ay defam ay xalaatam waxam yu baax dafa des. am na ko yàlla yërëm xare ko àjjana firdaws mhm. am na am na solo euh, euh, soxna aram Arame Gueye Diop euh, nga nekk sociologue dañuy dugg ci débat bi parce que bu ñu xoolee bu ñu defee lien bi dafa bokk dañoo nekk ci jamono boo xam ne xëy na ci wàllu politique la ñuy la la ñuy dugg ñu bëri amatuñu repère également ci li nga xam ne mooy seen référence parce que Amadou Mokhtar Mbow yaa ngi ko doon wax sànq repère la ci loolu Lamine mu ngi koy wax kenn mësul dëgg mu yëkkati ay kàdd yu ñaaw mais dafa mel léegi jamono bi moom waxatul sax kàddu yu ñaaw waaye raayante bi ak yu ñu mel Euh, léegi lu gars yi di xawal sax ak réseaux sociaux yi yow loolu yëpp boo ko xayma ak nga nan nga gisee ni société bi di évoluer jamono bi ci réew mi ak li nga xam ne moom la mag yu baax yi bàyyi fi jërëjëf ma xam nga euh, dafa am loo xam ne ñun dañ ko war a bàyyi xel mm-hmm. yàlla dafa wax ci alquran ne wa man arada an dikri fa inna lahu maïchatan danka mm-hmm. tous ceux qui se détournent de mon rappel auront une vie de ci crise la ñuy rappel bi lan la mooy li nga xam ne moom la yàlla yónni woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñi ngi nekk ci weeru gàmm may ndokkeel ñi nga xam ne ci Sénégal moo xam Touba. Mm-hmm. moo xam Tiwaawan Medina bàyyi Ndiassane ñi nga xam ne ñëpp dans l'unité mm-hmm. dans la cohésion màggal nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ci màggal boobu ñuy fàttaliku ne yonent bi dañ ko yónni pour mu parfaire les bon comportement wax na ko dañ ma ma ma ma ma mott li jikko yu baax yi yàlla wax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen exemple mhm. moom lan war a roy lan lan koy royee jikko ju baax mais jikko ju baax jooju comme ni nga ko waxee dañu dem ba jamono tey loolu daf daf ñu réer mhm. moo tax ñu depuis deux ans ñuy wax à la recherche des valeur perdues te chaque jour daf ñuy wan ne pertinence loolu ñuy wax mhm. ndax dañu gis ne suñu réew mii di Sénégal bu dee ñu am jàng manqué wu fi ñi ngi wax kenn ci Amadou Makhtar Mbow li mu représenté ci wàllu xam-xam ci àdduna bi noonu nga koy jëlee ci Amadou Makhtar Mbow mën nga ko jëlee ay de de sénégal yoo xam ne tey ci àdduna bi taxawaay ci wàllu xam-xam mhm. mën nga ci wax la tonne et le donc bari na mhm. boo jëlee ci wàllu alal comme waaw am nan ko <coughs> mais nan mooy suñu problème mhm. suñu problème mooy dañoo dem ba suñu jikko yooyu nga xam ne suñu maam yi moom la ñu yare woon jikko yooyu xam moo tax ñuy wax Sénégal jikko yooyu dañu réer hmm. te buñ ci benn buñ amul lenn loo xam ne tey war nañ cee jaaxal ndax hmm. askan woo gis même hmm. Ahmed Shawqi da koy wax askan boo gis rek seen jikko ju rafet moo leen fa bàyyi bu fi seen jikko nekkatul dara nekkatu fa loolu moo tax ñu dem ak aussi àdduna bi ni muy doxee internet réseau sociaux nga xam ne tey bu ñu fekkoon ñun ñu toog ci suñu lu ñu am d'abord mhm. ah li Senghor doon wax l'enracinement d'abord mhm. toog ci suñuy valeur mhm. kon ubbeeku bi duñu këf mais ñun dañu fàtte suñuy valeur ba pare ubbeeku ci ay valeur yoo xam ne boo xoolee moo ñu ëpp doole li ngay gis lépp loolu moo ko waral tey boo xoolee damay jël benn exemple rek may jaal ñi nga xam ne seen doom yi des nañ ci ci ci ci ci ci géej gi yaa ngi wax sànq ci sa revue de presse ay sénégal yoo xam ne ñi ngi nekk Libye fekk ñi ngi leen di indi suba mm-hmm. yàlla na egg seen jàmm mm-hmm. noonu mu amee libi noonu la am ay sénégalais yu nekk Alger ñi nekk Maroc et cetera mm-hmm. di ah. dund situation yu difficile te boo xoolee situation bi li leen ko yóbbee mooy suñu société ñu muy bindoo suñu environnement lan leen wan xale yi lan leen offrir comme valeur tekki dañu dem ba ci société boo xam ne dañu réer ñu jàpp ne wan ko ñëpp ne tekki la seule valeur buy wane ne tekki nga dans notre société mooy nga am mooy nga am xaalis. Mhm. mooy nga am koom moo tax ñëpp di ko wuti. loolu moo tax jigéen ji ci këram di sëy att na jël jaay alalam jaay ay bijoux jaay ay juróom dajale ko. Mhm. muy xaalis mu jël ko jox ko doomam pour mu dugg ci gaal gi. xamul ne mi ngi koy sànki mais li tax mu koy def parce que dañu jàpp ne dans nos familles jigéen ñiy sëy jàpp nañ ne seen doom bu tekkiwul ñoom ñoo sëyee nu baaxul wolof yi di lépp sax naan ku mëkk sa ku mëkk sa cere sa yaay tuur sa ñeex xam bu nekkee ci société bu garaaw ku mëkk sa cere <laughs> sa yaay tuur sa ñeex hmm. donc comme jigéen ñi nag bëgguñu ñu jàpp ne seen doom ñoo tuur seen ñeex ñuy dugg ci difficulté yu mel noonu moo tax ñun au niveau du mouvement Sàmm Suñu Ngor mhm. le 30 décembre 2023 mhm. situation bi mu commencé phénomène Nicaragua xale yi commencé mhm. xam nga ñun waa Njàmbur xamuñu ndox bu ndee bay dugg ci ndox di kii kon problème am na ci laa woote benn forum au niveau de Louga un forum national sur les migrations irrégulières nga xam ne dama woo parents yi ñu toog ndax dama ne ñoom problème lan mais aussi parti leen ci solution yi bu ñu tegee pression bu ñuy teg xale yi pression sociale bu ñu ko wàccee bu ñu ko wàññee rek defe naa ne xale yi dinañ am neneen neneen neneen neneen neneen ñu taxel donc parents yi ñëw toog les autorités yi ñëw toog ñu waxtaan ci émigration te loolu ñun def nañ ko au niveau de Louga te xam nga ni Louga jàpp jàngal lu ma la dara. defe naa ne Louga moom bu ñu wax dëkk dëkk dëkk euh, émigration rek. Louga la. waaw bëri na immigré waaw effectivement donc loolu ñun def nañ ko. Mhm. pour wax la pour ñu dellusiwaat il faut ñu taxawaat ci fondamentaux yi mhm. ñu xam ne tekki pour tekki am na yeneen valeur yoo xam ne rek du am xaalis sànq yaa ngi koy wax agression yi ngay gis lan la xale yi xaalis rek la ñu wut boo jàppee nit ray ko jël la mu yor moo xam nga jël portable moo xam nga jël moto am koy jaay rek jënde ko ay ay kii jënd jënd xaalis rek nga ci ah, soxla mhm, mhm. donc loolu war nañ ci taxaw te xale yi damay wax ne Sénégal fi mu toll xale yi war nañ leen a taxaw war nañ leen a taxaw ci seen formation war nañ leen a taxaw ci seen éducation te bu ma wax éducation nag man bi njëkk a ñëw pour man éducation spirituelle d'abord parce que nit ki il faut que mu def rafetal xam lan moo ko war digganteem ak boroomam moo koy permettre moom mu xam nan lan war a comporter wu digganteem ak nit ñi mm-hmm. loolu buñ ko defee rek ñu indiwaat ko ci champ politique bi. Mm-hmm. parce que politique y a pas plus noble que cela. Mm-hmm. quand on dit que la politique c'est la gestion de la cité mais cité bi ni may wax cité bi kenn mënu koo gérer ba pare te nga génne ci valeur. Mm-hmm. cité kenn mënu koo gérer te génne ci valeur moo tax ñu bari tey dañu suur politique bi parce que am na yu bari yoo xam ne bëgguñu ko bëgguñu ci dugg. parce que ni politique bi mel la aussi. ni pol politique bi mel la. bu dee politique. mooy wax loo dul def bu dee politique mooy saaga mooy wax lu bon wax lu ñaaw te defe naa loolu tamit yéen presse bi am ngeen lu ngeen ci joué parce que dans da dans dans nos plateaux de télévision on a tendance ñi nga xam ne dañuy def buzz mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw toog di xaste te di wax wax ju ñaaw te mm-hmm. réew mi nag mm-hmm. réew maam Alaaji Malick Sy mm-hmm. réew Serigne Touba réew réew Limaamu Laay réew Thierno Souleymane bal réew moomu li nga xam ne moo war a tax nit ñi di émerger kooku valeur la wala doon mais warul doon wax ju ñaaw donc daal vraiment defe naa ne ay mbir la yoo xam ne mhm. buñ ci taxawaatee mhm. ñu def la nga xamoon ne chaque année dama koy wax mhm. Serigne Mor mbay daf waxoon lu am solo ba tey bàyyeeguñ ko daf doon woo daf ñu doon woo à un dëpp collectif man jàpp naa ne nii muy demee nii ak banalisation de la mort bi am ci Sénégal nga xam ne bërki démb rek trente cadavres lañ génnee ci géej gi ak li xew mbuur maa ngi leen di jaal ak li tali bi rey et cetera et cetera ñu dem ba loolu da nga ko banaliser war na noo taxawaat nag def un ndëpp collectif ñu jéem a xool ñun fan lañ jëm parce que dama gëm ne mhm. ñun nii ñu dunde at yi waruñoo pare pour dund at yi ñëw il n'est loolu moom. il est bëri na dee dee bëri na ci géej gi. ak feneen fu mu nekk dinaa ñëwaat ci yow ci impatience ndaw ñi. ak gaal gi ak immigration bi mais Lamine euh, yow nga bokk ci Pastef yéen ñi nga xam ne jamono bi euh, yéen nekk ci nguur gi euh, nga yor également sa mouvement foofu ci Louga mais tey jii bu ñuy wax la responsabilité aussi des hommes politiques yow nan nga nan nga gisee mbir mi ak ni société bi di doxee ba nga xam ne tey ku lu neex waay wax ak ku nekk xalaat ne war na dugg ci politique ngir rek mën a am dara askan dañ koy dañ koy fàtte. waaw monsieur Mal xam nga question bi ma laat man daf ma fàttali un lu ma doon développé le septembre à Louga sama activité bi ma doon def à Louga. Mm-hmm. dama sol les couleur nationales verte jaune rouge ak benn casquette. Mm-hmm. ma ni man tey li may def nii tey di bale mbedd yi mais di jëmbat ay garab. Mm-hmm. dama ci génne benn ponk boo xam ni. Euh, dafa jëm ci civisme maanaam ñun Sénégal nañu bëgg suñu réew nañu fonk suñuy institution commencé ko ci cër bi ñu war a jox cër ak déglu bi ñu war a jox monsieur le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye le premier ministre yi fi nekk yëpp tey bànqaasu réew mi dañ leen war a jox cër xam nga loolu lan laa ci lu xalaat loolu mm-hmm. parce que ñun bi ñu nekkee ale ko élémentaire mais bu ñu ñëwee di dugg classe mais dañuy ñëw mais ñu chanter hymne national bu Sénégal mm-hmm. bu ñu duggee classe ñu def éducation civique yenn saa morale la ñu def yenn saa éducation sanitaire mm-hmm. xam nga pendant ces années là boobu tey Sénégal melu woon nii banditisme bi melu woon nii parce que xale yi ci école bi daan nañ am ay valeurs yoo xam ne dañ leen ko ci daan dugal ba ci organisation. di défilé 4 4 avril ah. Sénégal. Mhm. gis nga c'était des moments yu nga xam ni nit ñi dañ ci daan am ay valeur mhm. nit ñi dañ ci daan jàng nit ñi dañ ci daan bëgg suñu réew. tey pour ñu wàññi affaire immigration bi nga xam ne mu ngi def ay ay ay ay danger xale yiy dee ci géej gi tey agression bi bari na aussi Dakar et partout dans le Sénégal. non dañu war a tëggaat réew bi xam naa sociologue yi ñoom ñu ngi wax ndëpp national comme ni ko Aram waxee. Mhm. mais man damay wax rek tëggaat réew mi dafa ñëpp ci am cër. mais na commencé ci quartier yi am nañu ay conseil de quartier. Mhm. il faut que ñu demande à la base. gis nga autorités yi ñëw fii tey suñu autorité yi man li ma leen gën a gën a nawee mooy politique euh, d'endogénéité maanaam lépp ci réew mi lay jógee ci ñun ñun ñoo koy defal suñu bopp. Mhm. dañuy dellu lépp askan bi bu ñu defee loolu dinañ yar euh, dinañ yar xale yi dina leen euh, naftal ci bëgg suñu réew mais dinañ leen xamal li nga xam ne tamit mooy jafe-jafe kenn waru koo dund war nañoo moytu géej gi war nañoo fexe ba ndaw ñi aussi mm-hmm. euh, di bëgg bëgg bëgg seen réew mm-hmm. dina leen yóbbu mm-hmm. ba ñu mën àndandoo ci defar bi ànd bu ma nee àndandoo ci defar bi mooy lépp luy par exemple immigration clandestine. Mm-hmm. man dama jàpp ni nañ ko doon nañ ko war a jëlee ba léegi nag jëlaguñ ko mais autorités yi fi nekk je pense que danañ jël toutes les mesures mesures yi ci war parce que mënuñoo toog suñu jeunesse bi dee rek ah. Mm-hmm. jeunes yi lii dee fan yi aram mi ngi koy wax léegi dañoo dañoo sax léegi banaliser de parce que bërki démb li ñu découvrir foofu ci ci géej gi. Mhm. mais mel sa sa sa choc personne ah. dafa yéeme mais loolu doy mhm. man benn nit sax man bu ma gisee dara tur sax man damay tiit asamaan yi ñu gis ay nit trente personnes plus de trente mais ñu tëdd ñu ni ñii dañ doon dem pour wuti mais wuti loo fekkee man gisuma tey man Louga laa dëkk de ah. Mhm. immigration am na fa doole trop. mais suñuy mag suñuy nijaay ni ñu ko doon defee actuellement jeunes yi defewuñu ko noonu dañ doon dem ci ay conditions yoo xam ni. mais c'est c'est pas des conditions périlleuses mais tey lépp danger la quatre cent personnes bu ñu fi jegee tey mais da nga naan xanaa quatre-vingt yi wala quatre-vingt-dix yi dañuy des ci géej. mais mais yéen aussi euh, euh, homme politique yi am ngeen ci responsabilité Lamine. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, am na sax ñu jàpp ne xëy na radicalisation bi am ci espace politique bi bokk na ci li tax situation bi mel nii. aussi la responsabilité des des hommes politiques am na ñu koy ñu koy jiiñ sax ah Ousmane Sonko euh, ak compagnie si si seen arrivée au quand dans le landerneau politique moo tax léegi espace bi mel nii. ah non <laughs> je pense que ñun ñun defaguñ fi sax huit mois ñun dañ fi fekk situation bi géej gi lañ ko fi fekk xale yi dem di des ci géej gi loolu lañ ko fi fekk yaa ngi koy wax sànq ci sa propos introductif ñun ñu ngi soog a am euh, euh, le document. la stratégie nationale de développement 2025 2029 ñu ngi koy soog génne ñun ci teg la ñu nekk dañu ñu sommes en train de poser les stratégies pour ñu mën a yóbbu Sénégal fi ñu ko fekk mais fi ñu ko fekk nag mal dafa bon ah. waaw suba suba daal suba comme suba ñoom dinañ ci wax dinañ ci xam dinañ ci xam dara mais Sénégal quand bu fekku leen ko am dafa ngeen ko fekk aussi mais pas pas quand même benn situation comme ni ko Ousmane Sonko di waxee ruine quand même. ba mal. Mhm. Sénégal fi ñu ko fekk baaxul. Mhm. xamul dama la baaxul. Mhm. parce que nit ñi dañu gis ni euh, infrastructure yi fi nekk xëy na moo tax ñu naan ñi fi jóge def nañu mais li gën a bon moo yàqu ci réew mi réew mi jikko yi moo yàqu la corruption est à tous les niveaux mais nous avons une administration mais au rabais daara doxatul ci Sénégal te gis nga bu ñu demee ba fekk ñaari weer les fortes mesures que les les autorités vont prendre dana bett ñu bari ah on va réformer la gestion budgétaire de ce pays dañuy changer Sénégal parce que liñ fi fekk yàqu na yàqeet budget boo xam ne fu leen neex lañ koy dugal ñun kenn mënu gunoo wax dara au contraire fii ñu toll nii mais am nañu ndam parce que le diagnostic et profond le diagnostic et sans complaisance dugg nañu fépp xool nañu Sénégal ci côté économie ci côté jeunesse côté éducation côté emploi côté économie sociale et solidaire côté justice fépp càmbar nañ ko mais xam nañ ni vraiment mais góom bi dafa sori il faut vraiment euh, ñu inventer beneen Sénégal bu bees boobu nag ñu ngi commencé ci jikko yi jub jubal jubanti mais slogan yi dafa am njariñ de co-construction dañuy àndandoo ñu ñëpp ñu liggéey bu waaye la substitution aux importations mais non nous avons quand même des autorités yoo xam ni fi ñu toll dañuy initier ay affaires yu am solo Sénégal. d'accord togg gi bés bu ñoree ah. Mm. te léegi mu ñor. vous allez voir lii euh, Pastef présenté Sénégal mais ñëpp nañ ci gis seen bopp te dinañ toogaat fii ma ne la. ñu mesuré gars yi yàkkamti nañu ah. mais yàkkamti aussi yàqule il faut nga def ndànk parce que fi ñu ko fekk moo yàqu demal benn secteur tey bu ma bu ma wax ne boo ma wax ne tey baaxul demal ci éducation débat damay waxtaan ak xale yi ñoo xam ni bon euh, boo waroon def trois ans à l'université ngay def ay première année quoi ba léegi li may waxtaan rek aussi mhm. euh, ay nit ñu ne ma. mais seen activité dafa périclité maanaam amatul yi lañ doon yëngu lépp dafa yàqu. loolu boo boo ñëwee mënoo ñëw rek. nga aussi nga da ngay samp dara. qui veut aller loin doit ménager sa monture il faut que ñu def ndànk ñu xam fan lañ jëm. commencé ko aussi ci gafaka réew yi wax naa la la gestion budgétaire de ce pays est désastreuse. mais mais budget bi war a ñëw Lamine nan la nar a demee ak nan ngeen ko nar a euh, dundee parce que assemblée nationale amul amatul ci ci réew mi. Euh, euh, mal loolu du problème. Hmm. assemblée nationale amul budget bañ a am non. gis nga loi de finance bi loolu yëpp daf koo prévoir may na président de la république mais mu mu mu indi benn budget boo xam ne mais da koy dañ koy dañ koy accepté par ordonnance loolu xam nga mën na nekk mais am na yeneen i façon yoo xam ne sax mën nañ ko def mais man du ma dugg si loolu parce que gis nga ñi fi nekk nii ñoo ma gën a xam finance publique ñoo ma gën a xam gestion budgétaire ñoo ma gën a xam li ñuy yore réew xam naa ne lépp lu ci mën a doon le président de la République Bassirou Diomaye Faye avec euh, monsieur le premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Mhm. dinañ jël mesures yi nga xam ne lii fi nekkoon mooy gën bu baax plus de mille fois lii fi nekk. d'accord lii fi nekk yàq la. Mhm. yàq la dañu yàq réew ah. man mii tey bu ñu ma autorisé woon man. Mhm. Oh. fonctionnaire rek laa mais mun naa leen a woon ñoom ñi fi nekkoon mën naa toog ñoom ci benn table ronde man leen léegi lii fii ngeen ko def warul nekk fii xam nga budget dafa am dafa am fu ñu ko jaarale bu nit ñi dañ def dañuy jël rek. gafaka réew mi di utiliser non dafa am ay titre am na loo xam ne bu dee transfert courant la titre 4 bi nga xam ne nit ñu bëri xam nañ ko day dem ci askan wi yu demee noonu mais nga jël ko yow nga ni dama koy yóbbu ci beneen titre boo xam ne mais amalul njariñ réew mi cest à de de de il faut il faut réviser carrément li fi nekkoon mm-hmm. parce que fañ doon fenn fu ñuy jëmee alalu réew mi foofu baaxul te man mun naa leen ko démontrer man nii man. d' accord léegi dina ñëwaat ci yow ak législative yi soxna euh, maa ngi ko doon wax sànq euh, dafa mel ne ñenn ñi jàpp nañ ndawu Sénégal dañoo yàkkamte euh, ce qui se passe ce qui s' est lu doy la mais est ce que da nga jàpp ne les jeunes aussi sont sont impatients est ce que ak impatience boobu amee kan moo leen ko teg la responsabilité des politiques moom duñ ko ci génnee mais l' impatience des jeunes est nga jàpp ne ndaw ñi aussi dañoo yàkkamte comme ni ko ñenn ñi jàppee. waaw man xam nga du ma wax euh, ndaw ñi dañu yàkkamti xaar may ma jaaga dafa doon wax ne xale yi ku leen juróom yërëm leen muy wax ne war a yore ñu yor la dafa metti loolu moom defe naa ñëpp xam nañ ko war toll ci war a yore ñuy continuer di la yor loolu dafa metti mais la responsabilité pour man elle est partagée hmm. politiciens yi am nañ ci wàll hmm. parents yi am nañ ci wàll mais xale yi tamit am nañ ci wàllu ñoom tamit ñi nekk ci biti aussi bitim réew am nañ ci wàllu parce que bu ñuy won tout le temps xale yi ne leen fii moo gën fi ngeen ne mais kenn ku nekk boo sañoon fa gën ngay dem mhm. te nekkuñu ci jamono joo boo xam ne kenn mënta tëj kenn mhm. tëj nit dafa baaxoo di bouger dafa baaxoo di jug fii di dem feneen donc comme noonu la baaxoo nag war nañ ko xool ñun en tant que autorité fii mhm. politique ñu jéem a xool xale yi ci yan condition lañ leen di teg parce que kenn mënta tey kenn ban ma ñu ban mënu dem ci dans des conditions yoo xam ne dina leen permettre ñu àgg fa ñuy àgg liggéey la ñuy liggéey indi ko parce que kenn du naatable apport bi nga xam ne sénégalais yi ñëw ñi nekk ci biti ñu ngi koy indi ci Sénégal ci ci budget Sénégal mm-hmm. damay wax tout le temps foofu foofu sama sama nijaay Lamine dama fi d'accord ak moom man dama jàpp ne. Mm-hmm. de Senghor à Macky Sall. en passant par Abdoulaye Wade Abdou Diouf kenn ku nekk la nga tollool ak la nga mën a def def nga ko la nga tollool ak la nga mën a def def nga ko donc il appartient maintenant aux autorités li nga xam ne fekk nañ ko fi mais non kenn mënut wax ne lépp bon am na lu baax dans toute gestion am na lu baax am lu bon comme ñoom bi ñu fi toogee ba léegi am na yoo xam ne ñi ngi koy def nit ñi apprécier ko mais am na yu bari yoo xam ne ñi ngi koy def nit ñi apprécier wul ko nit moo mel noonu l'être humain est imparfait donc ses actions son imparfaites mais li ñu mën a def mooy nan la ñuy xool jël Sénégal teg ko rek mu nekk suñu dénominateur commun bëgg réew mi nekk suñu dénominateur commun jeunes yi ñu waxat ak ñoom waaw wax ñoom delloo leen ci mag ñi lu ñu jàngale jeune dafa am foo xam ne bu fa tolloo dafa am lu ko war lu ko war mooy jàng d'abord ñu bari tey dañuy wax jeunes yi amuñu emploi amuñu kii mais xale yi ndax am na éducation ba ca war est que am nañ formation ba ca war formation bi ñu am est-ce que cette formation est en adéquation avec emploi yu ñu leen di proposé. oui surtout donc loolu war nañ ko xool beneen bi tamit. Mm-hmm. ñu yamale suñu bëgg-bëgg. Mm-hmm. yàlla boolewul ñëpp yamale. Mm-hmm. mais yaa a un minimum boo xam ne tey war nañ ci taxaw mooy gis nga xale yi. war nañ leen yërëm. mais ce discours là les politiques am nañ ci responsabilité parce que récemment Sénégal changement bu mu am ba dama gis benn ndaw sax bi wax ne man euh, discours bi Ousmane Sonko doon yëkkati bokk na ci li tax ma ñëwaat ci réew mi c'est-à-dire responsabilité aujourd'hui ñoo ngi jëm ci ay législatives euh, digg yi dafay bëri souvent te ndaw ñi dafa mel ne digg yooyu après duñ ko gis la responsabilité aujourd'hui des hommes politiques également ci discours bu ñuy yëkkati euh, te loolu defe naa c'est une manière de faire de la politique boo xam ne war na fi jóge ndax ñun loo ci mënti dégg dans ce pays nous sommes une communauté de foi quatre-vingt-quinze pour cent de jullit cinq pour cent de chrétiens communauté de foi te foi bu amul bu mënul jeexatil sa dund ci li ngay def amul sens yàlla diñu wax yaa ayyuhal ladina amanu li ma taquluna ma la tafalun vous ô vous qui croyez pourquoi dites-vous ce que vous ne faites defe naa loolu gis nga aaya boobu chaque politicien bu yeewoo war na koy bàyyi xel li tax ngay wax loo xam ne doo doo ko du def kabura maqtan indallaahi an maa laa la tafaaluun yàlla ci boppam dafa rëbb koo xam ne day wax te du ko def te defe naa ne li ëpp ci ñun du ñëpp de daanaka bu ñuy wax nan wax rek ba jàll nan wax rek ba am lu ñu bëgg mais li ngi après te yaa ngi koy wax élection législative kenn ku nekk yaa ngi bëgg a nekk député mais nekk nekk député pour lan est-ce que posé wuñ question nekk député pour lan pourquoi mm-hmm. Mm-hmm. dama bëgg a nekk député pour man ma servir sama situation baax wala damay nekk député parce que tout simplement dama war a taxawal sama askan mm-hmm. kan ci ñun mooy poser question à chaque fois bu buñ ko joxee poste de responsabilité mu xool moom lan la ci war a defar pour askanam donc ñun suñu problème loolu la jeunes yi certes yàkkamti nan bu baax parce que àdduna bi nin leen koy wallantoo di leen ko damay wax xëlantoo xaw ma ndax xamoo boo xam moom <laughs> di leen appâté di leen ko wan uh-huh. ñu condition yu baax te Europe defe naa ña fa nekk Occident sax d'une manière générale mm-hmm. xam nan ne na meloon démb melu ko tey mm-hmm. mais xale yi booy am tendance lu nga boole wax danaan mais pourtant melu ko tey mais gaa ñaa ngi dem ba tey te ñi te ñi demoon ba tey toogaguñ mais daal li am solo mooy nañu fexe sama nijaay wax na ko sànq mm-hmm. développer le patriotisme mm-hmm. la citoyenneté nit ki bëgg réewam mm-hmm. surtout lu am solo ngi noonu xam nga Senghor dafay wax dans l'hymne de la jeunesse di wax Sénégal s'il le fallait nous yoon notre souffle pour te défendre au notre patrie loolu dafa am loolu xam nga yaa wax hymne national il faut loolu ñu koy jàngalaat xale Senghor lan la wax ci hymne de la jeunesse bés bu ko jaree pare nan pour jaay suñu bakkan pour sauver suñu suñu suñu patrie pour sauver suñu société mhm. ñun nag kenn waxu leen ñu jaay seen bakkan dama ko doon wax sama sama sama ñoom nijaay yi di leen di leen tooñ bi ñu wax mortel combat di wax mortel combat mën na leen ñun waxuñu mortel combat ñun on fait un appel à la vie parce que àdduna loolu la yonent bi bi yàlla bi wax ci alxuraan bi war nit ñi da leen yaa ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuhyikum ô vous qui croyez répondez à l'appel de Dieu et de son prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre donc kuy woon nit ñi moo tax dama koy toon toujours nang woon nit ñi ci dund mhm. ñu xam ne njariñ loo fekkee mhm. ñu xam ne Sénégal société bi mhm. jeunesse bi dañ leen soxla dañu war dañu war a dund pour ñoom seen bopp war a dund pour seen famille mais war a dund aussi pour relever les défis wax la corruption défi la ci réew mi mhm. la pauvreté défi la ci réew mi mhm. éducation défi la ci réew mi mais defi yooyu kan moo koy président jomaa Diomaye wax na ko bi mu demee keroog Mbour mhm. nee na leen réew yooyu ñu jëm mais ña ko tabax seeni doom ñoo ko tabax ah mais est que tey ñun waruñoo toogaat ñun xoolaat suñu bopp joxante loxo Sénégal xam ne Sénégal li koy développé ñun la ñun d'abord ñoo koy développé mais pour cela nag il faut ñu def de telle sorte que réew mi di soof xale yi quoi. Mhm, surtout parce que maal gis nga réew mi nag. Mhm. bu ma gisee ci gaal gi. waaw ay élèves C2. Mhm. primaire. des familles entières yu dugg ci gaal gi. papa yaay doom yanu. am nga gis ay enseignants. xam nga enseignant bi am na métier. am na salaire. tourner la doo à l'école di dem ngay gis ay étudiants. renoncer si leurs études pour dem. cela veut dire que ne. a y' a un autre problème man dama gis ne réew mi moo soof ci xale yi. Hmm. soof bi nag bokk na ci dama koy wax la classe politique. Hmm. pendant depuis des années. Hmm. gëmloo na leen ne réew mi daal réew mi daal mi ngi noonu. donc moo doon loolu tamit lu am solo la dina dina si dina dina dina ñëwaat si ñëwaat ci yow ci kanam ak sa mouvement sàmm suñu ngor parce que les valeurs aussi lu am solo la inculque les valeurs Lamine euh, yow aussi yaay président convergence patriotique pour le développement de Louga euh, ci bokk ci Pastef mais tey jii ni ñoo ngi jëm ci législative au niveau de Louga euh, yéen Pastef lan ngeen fay waajal ak lan ngeen fas yéene def bon je sais que législative bi du yomb parce que y a Moustapha a luga oui merci monsieur Mal. Mm. mais damay may tuuti rek une minute euh, dugg ci li euh, soxna Aram wax sama jarbaat. Mm-hmm. parce que bon c'est vrai que nee na na lu mu fi fekk Abdou Diouf Senghor ñoom ñu fi jaar ñëpp kon lépp bonul. Mm-hmm. mais je vous dis hein, très sérieusement. Mm-hmm. de 2014 à 2023. il ne m'a jamais été donné l'occasion de constater ou de vivre dans un pays où l'administration est à genoux Mm-hmm. à ce point. un pays où le le la corruption. Mm-hmm. les abus de biens sociaux maanaam di pasar pasaree alal réew mi di ko sàcc. Mm-hmm. di def leen neex pays boo xam ni politicien bu àndul ak yow homme politique bu àndul ak yow nga liquider ko dàq ko mais suñu président parti dañ koo dàq ci fonction publique exemple yooyu laay joxe c'est-à-dire xëy na lépp bon mais li gën a am solo moom lañ yàq muy jikko yi. loolu dama ci doon jaar. Mhm. léegi nag pour euh, les législatives à Louga Mbour Thiès feneen fu mu mën doon man je me veux un Baye Fall de Pastef tey le président de la république fu mu joxoñ man foofu laay jaar le président de notre parti Ousmane Sonko lu mu wax loolu laay def à kuñ ku mën a jiital damay topp sa ginnaaw jàpp mhm. parce que man tëmuma pour samay affaire yi quand j'ai créé la convergence patriotique pour le développement de Louga mais je me suis rendu compte que bi ma xoolee Louga dama ne mais dëkk bi lépp ngi fi mais amul lépp bon loolu nag dana xaw a dégg quoi xëy sama jarbaat am dina ko xam lépp ngi fi mais amul lépp gis nga Louga lépp luy jëmal kanam Louga lépp luy jëmal kanam ak gox ñun Louga am nañ ko parce que ñun am na loo xam ne bañ ko amee mais yàgg naa du yàgg na suñu dëkk bañ amee loolu yàgg na mais xam nga problème bi mooy lan mais dañu amul benn stratégie de stratégie de planification xam nga. Mhm. loolu la ñu amul pour mën a jëmale kanam suñu dëkk. léegi nag ci côté politique bi ngay wax naan. Mhm. législative bi pour ma pour ma rester ci. Mhm. man je suis depuis depuis ba ñu waxee ni législative yi set novembre la man pare na mais moom ma sam bopp man chaque semaine damay dem Louga samedi dimanche. def sama activité politique. d'accord ànd ak samay mbokk ànd ak samay xarit. Mhm. def samay activité aussi citoyenne. parce que ñaari mbir yi dama leen tàqale la COPADEL est un mouvement citoyen mais nag je damay def sama politique parce que dama bokk MONCAP mouvement national des cadres patriotiques mhm. mais gis nga lii ñu woote pour jëm élection législative yi maa ngi ñaan ñu am une écrasante une écrasante majorité. Mhm. oui parce que suñuy politique dañ koy jàllale parce que day am njëriñ ci réew mais comme ni ko yéen kaay bi waxee choix Ousmane Sonko choix bu stratégique la aussi euh, boo xam ne c' est bien mûri ah c' est même c' est la première fois ngeen di dem élection législative euh, seen bannière yéen kese mais euh, choix choix Ousmane Sonko déjà jàpp nga ne même fu mu yeggul dina am li mu fa bëgg a am. ah mais mais jàpp naa ni moom rek moom rek. ah le président Sonko moom rek. Mhm. mais ñun fu ñu bëgg àgg dañu fay àggale ci législative yi au delà ay écrasante majorité parce que sa personne. Mhm. ses idéaux ses convictions. ce qu'il a enduré fi mu jaar ak li mu wax sénégalais yi ak jub gi nekk ci moom mais loolu rek def nit ki xam nga xam nga nit ah da nga koy xoolee. moom ni mu mel. xam nga lu tax sénégalais yi demuñu tànn keneen lu tax sénégalais yi am yaakaar ci président Sonko mais maguñu ëpp ñu juddu bu rafet ëpp ñu am njàng wala yooyu mais di ko jaral ni mu ko jaral moo am solo li laa a mené en combat citoyen boo xam ne tey dafa dafa génnee Sénégal ci lëndëm indi ko ci leer li fi nekkoon dafa doy waar maal toujours loolu laay waxaat c'est un leitmotiv pour moi. du yomb de ah. du non daara ci jafe. <laughs> rupture moom du yomb moom rupture mm-hmm. rupture bi non mi ngi am déjà. Mm-hmm. rupture bi maal. Mm-hmm. mais mais on de démocratiser la justice. one est en train de démocratiser mais. Euh, beaucoup de choses dans ce pays c'est-à-dire mbir yi mi ngi changé. Mm-hmm. ñi ngi yemale nit ñi. Sénégalais yi ñu ngi leen di woon ni ñëpp fi bokk yem kenn moomul dara kenn ëppalewul sama morom dara lépp Sénégal ko moom. Mm-hmm. ku ci nekk la nga yelloo yow la nga mën. Mm-hmm. moo la fay teg. mais élection législative yi. dinañ ko waxaat fii. Mhm. moi je souhaite qu'on ait plus de cent cent cinquante cent cinquante. mais à à Louga yaa Moustapha Diop aussi ah da ngeen waajal seen boobu de. non mais la page Moustapha Diop. mooy mooy maire foofu mais mais il est mhm. de Louga. Mhm. mais Moustapha Diop mais dans dans le contexte actuel il appartient au passé hein. i il mais il ne représente plus rien. sama rakk la nag quoi c'est-à-dire ko ay xeer mais Moustapha Diop ci boppam. actuellement xam nga lu ñu wax ci Sénégal. Pastef la ñu wax ànd ak ñi fi nekk. ànd ak la président Bassirou Diomaye Faye son excellence ànd ak suñu président parti Ousmane Sonko. d'accord ñu yóbbu Sénégal. Mhm. mais foo xam ne mais nekku foo woon yi fi nekk ci ay jafe-jafe ñu génne ko mais yow xale yi nga gis yi génnal ci mbedd bi mais yow yaay wax affaire wu mais les kii ñii ñi fi nekk le les ni ma leen di tuddee sa xaw ma parce que c'est un passé récent quoi bugguma xaw ma nu ma leen di tuddee mhm. mais suñu ñi nga xam ne yàgg nañ fi quoi ah te defuñu fi dara mhm. mais ñooñu parce que. ah ñooy créé ay ay coalition ah coalition sàmm sa kàddu aussi. juddu na ci mais mais c'est des coalitions de fausse nature. xam nga lu hmm. parce que Sénégal taxul leen a jóg quoi. ah bon non sérieusement Sénégal taxul leen a jóg on peut pas être un politicien mais centenaire quoi nga bëgg fi rester. defoo fi dara di hmm. di diisal say poche di am say kër ñu lay dégg ci scandale financier bu nekk le foncier ñu koy brader. mais dinañ ñëwaat fii Sénégal fi nga xam ne tey. d'accord génnoon nañu ci lëndëm tey mm-hmm. ñoom ñu leen koy delloowaat. Mm-hmm. non tout le monde les les Sénégalais sont surpris parce que euh, verdict gu élection yi. Mm-hmm. bu ñu yàlla dimbalee ba ñu dem au soir du 17 novembre 2024. mais les gens dinañu mais man sax lii yaakaaruma ko woon non mais la défaite sera cuisante pour ces gens-là. ah donc c'est pour vous on va on verra. non pour nous pour mm. nous actuellement. Mm. Sénégal ñun la gëm Sénégal ñun lañ bëgg. Sénégal ñun lañ wóolu ci liñ naan ci liñ te loolu mooy nekk. buñ ko trahir mu 54 pour cent yi mun na changer si diggante bi de. dalañ ko yàlla bu ñu ko janax wax ci kàmb. mais je vous dis ñun fii ñu toll nii. Mm. ak li ñuy def nii. Mm. fii ñu toll suñu communication bi nga xam ne lépp lu ñu def ñu ngi koy wax yow yaa ko wax fii même suba yow wax nga ne dañuy recevoir presse wax ak ñoom. Mm-hmm. ñun lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee. te xam nga luñ li ma lay wax li am li gën a am solo ci changement bi am Sénégal. mooy amuñu parti boo xam ne dafa am genre patrimonialisation. non amul ñun suñu parti dañuy waxtaan. suñu parti lépp lépp intérêt réew moo ko tax a jóg amul kenn koo xam ne da nga nekk nekkit boo xam ne yaakaar na mais bu dul yow du kenn ñëpp la ñëpp la ñuy waxtaanal. d'accord mhm. lu am solo la Lamine maa ngi ah. maa ngi ñëwaat ci yow léegi euh, balaa may kii euh, soxna Aram euh, comme ni mu ko waxee yow yaay président aussi mouvement sàmm sunu ngor man bi nga waxee ngor sax ngor bee laa mais ngor la maanaam ngor mooy ngor bi nit war a dignité voilà man bi nga waxee ngor moom sama xel ci ngor bee la demoon mais tey est-ce que da nga jàpp ni loolu valeur yi. su fekkee valeur amul aussi parce que dañ koy wax ci xale yi rek mais souvent aussi si mag yi du ci am parce que que yaa ngi koy wax sànq bu fekkee mag bu am yenn at yi aussi am responsabilité mun a yëkkati yenn kaddu yu ñaaw bu ko xale gisee daf koy roy donc problème bi fan la cité yow ba valeur yooyu nga xam ne amoon nañ ko euh, à l'époque mu daal di disparaître. maal xam nga man damay faral di wax ne gone léegi. Mhm. mag yi léegi ñoo leen jur. gone léegi gone léegi. Mhm. mag yi léegi ñoo leen jur. Mhm. mag mënoo nekk di saaga di def naka su dul noonu bëgg am gone yoo xam ne tamit duñ saaga duñ def naka su dul noonu. gone léegi te pour wax valeur. xam nga quand je parle de valeur. oui bu ñu ko jàppee rek de ces valeurs religieuses déedéet. Mm-hmm. démocratie valeur la ci la. Mm-hmm. la démocratie. Mm-hmm. valeur la. valeur la boo xam ne ñun Sénégal tax na àdduna bi yépp naw ñu benn. te démocratie dafa bëgg équilibre des pouvoirs. dañu jëm ah, élection législative. oui. sama nijaay bërki démb. à un passé très récent ñoom wax ñooñu wax nañu erreur la nga jël pouvoir jox ko ki nekk pouvoir nga jox ko majorité à l'Assemblée nationale donc bu ko déggee mu naan ñoom ñoom majorité lañ bëgg a am nii noonu beneen bi mooy <laughs> mhm. man je suis mi ngi wax je suis très respectueuse de nos institutions mhm. te man en tant que Njàmbur Njàmbur la première institution c'est le maire de Louga maa ngi nuyu mhm. ah, bu wax ne le maire de Louga ne représente plus rien non non non déedéet loolu. Hmm. xëy na xëy na daf koy wax rek. loolu loolu casquette politique bi la koy hmm. je sais que ne maire Louga ma nga fa. Hmm. mais sur le plan politique. Louga moom ku fa bëgg dara boo ko fa lijjantee am ko sa à dire njàmbur mooy mooy mooy population boo xam ne kenn tënku leen ñëwal wax ñoom ñu am ci yow confiance contrat de confiance boobu. bi am. ñu wóor la ne yow boo demee assemblée nationale danga nga da nga défendre seeni seeni seeni préoccupation ak foo mënti bokk mhm. ñoom dinañ la fal mhm. te loolu dama ko dama bëgg nit ñi bàyyi ko xel mhm. que ne fi ñu jëm man gëwuma ne élection député d'abord c'est une question de de de d'élection de parti pour man maa ngi koy dégg dem ku koy wax ne affaire affaire nawetaan la kenn ku nekk gox ba nga nekk yaa gën a xam ka nga xam ne bu taxawee assemblée nationale dana jëmal sa gox waaye dana defendre intérêt réew mi te kooku fu mënti bokk man moom laay wax fu mënti bokk ah nit ñi dañ ko war a dañ war a ànd ak moom fu mu ne nit ci bokk man loolu laa nit ñi damay wax ne ñun suñu challenge dëgg ñun en tant que homme politique mm-hmm. en tant que femme politique mm-hmm. mooy la Senghor waxoon rassembler les poussins à l'abri des milans mm-hmm. ah ñun loolu moo war a nekk. parce que assemblée boobu sax valeur yi ngay wax assemblée sax gis nañu quand même souvent assemblée bu fi weesu ay kaddu yu ñaaw ay euh, mbir yoo xam ne vraiment euh, nuróowul ak image aussi assemblée loolu yëpp dafay ñëw ci valeur également. waaw moom laa la xam nga dama man dama faral dama gëm ne. Mhm. société bu nekk dafay am école am. Mhm. am classe politique am. am assemblée nationale. yow li nga gis ci société bi rek. Mhm. moom nga gis ci assemblée nationale. gaa ñi dañu nekk ci ci suñu biir di xeex di xuloo. parce que nit ki mën nga mën nga nekk moom mën nga mën a bañ a bokk ay ay xalaat. mais kenn ku nekk exprimer xalaatam avec avec avec avec respect. defe naa ñun loolu la ñuy jàngal kenn ku nekk ñun ñëpp Ndiaga def ko daan wax. d'accord ah. Mhm. yé maanaam jëf mën na bañ a doon benn mais yéen a ji doon benn. Mhm. man jàpp naa ne. Mhm. man damaa gëm te kenn mënu maa wax loo le contraire. que moo xam président Ousmane Sonko moo xam Diomaye fay moo xam Macky Sall moo xam moo xam moo xam Abdou Diouf moo xam keneen kenn gënu leen a bëgg réew mi moo xam Aram Gueye jóg moo xam lamin ñun ñëpp on a le Sénégal dans le cœur xëy na peut-être que ni dinañ am ay woro ci suñu stratégie ak ni ñuy doxale mais yooyu dañ ko war a dépasser ñu xam ne ñeneen ñi tout tout le temps loolu dama koy wax. ñeneen ñi nit ñi defee politique xam nga toujours da nga de waaw non assemblée nationale bi xanaa xooloo sax Turquie barki démb seen député yaa ngi xeex xanaa xooloo France non ñoo xam ñoom mën nañu xeex. mais fii Sénégal benn bopp la ñun ñëpp ay bokk lañu. ñun mën nañoo war a bañ a xeex. donc mën daal loolu laay wootee mhm. ci assemblée nationale boo xam ne. Mhm. dafay am pluralité. Mhm. c' est pas parce que on a une assemblée plurielle que du défendre intérêt Sénégal en tout cas bu Sénégal nekkee suñu intérêt rek. te loolu déjà entre guillemets danañ ko xool. barki démb maa ngi wax ci benn émission ma ne leen gaal gii teer barki démb ngor. Mhm. gaa ñi kenn waxu ci. Mhm. c'est pas parce que intéressé wu leen ne talaguñ ko ndax ñu ngi ci seen liste yi. ci wàllu politique cest à que la ñuy toog ñu am des personnes. Mhm. et des personnalités qui prennent soin du Sénégal. c'est vrai. qui prennent soin du Sénégal ñu xam ne Sénégal c'est un bijou. ñu koy ñu ko ñu ko ñu koy ñu koy nagg-naggee di ko di ko di ko defar pour mu baax donc loolu peut-être que ne avec la nouvelle génération peut-être <laughs> ak ñun ñi nga xam ne dañuy woote ay valeurs uh-huh. wax à la recherche des valeurs perdues depuis bi ñu commencé ba tey ci loolu la nekk mm-hmm. jéem a conscientiser nit ñi mm-hmm. fexe nit ñi nekk benn loolu daal defe naa buñ ci taxawee. dina am solo dina dina mhm. bi ñu bëgg daal. Mhm. Lamine dañ koy jeexalee ak leen euh, ñoo ngi jëm ci élection yi léegi lan moo war a doon euh, tax seen taxawaay euh, foofu ca Louga. voilà Mar. Mhm. wax damay waaw mais moi je reconnais que. waaw temps bi léegi mu jeex moo tax ma bëgg nga jeex waaw. <laughs> à, à, à sa frère. qualité c'est mon jeune frère aussi on a des relations mm-hmm. mais dama ni tey su fekkoon élection municipale dafa am suba mm-hmm. su Pastef tegee benn candidat Louga candidat boobu man moom laay jàppale moom laay bëgg mu gagné mm-hmm. ñoom ñi fi nekk équipe bi dama leen di ñaanal ñu réussir pour maire Louga la leen fa dese mais buñ fa àggee nag ba mu jeex yàlla na beneen nit bu ñëw ku leen ëpp ku gën a xariñ mais jël maire bi ñu ñëpp ñu ànd na jàppale ko léegi nag man ci li ma laaj mhm. lan mooy sunu taxawaay mhm. man en tant que élément bu bokk ci Pastef mhm. wax naa la ko léegi nee naa la élection yi jëpp man ba ñu ne élection yi 17 novembre la ci laa commencé man d'accord kon tàmbali nga daal ci terrain man commencé naa parce que man damaa bëgg ñu am mais da nga bëgg ñu investir li ci lycée aussi à Louga <laughs> non je n'ai pas demandé à être hmm. man ces questions dañ koy bàyyi le président de notre parti xam nga man ñëwuma politique hmm. pour naan jox leen nu wula yooyu non parce que man fu ma nekk mën naa fa liggéeyal Sénégal d'accord suñ ma joxee hmm. damay jël mais man je veux tout serviteur man damay servir sama réew ak station bu ma mën a nekk maa ngi ci administration bi maa ngi liggéey mais fa ma nekk dama fay jéem a taxaw taxawaay bu rafet. d' accord. pour sama réew jëm kanam. d' maa ngi lay jaajëfal bu baax soxna Aram mm-hmm. eh, waxtu bi ñu cëraloon jeex na. Mm-hmm. ma bàyyi la rek eh, sa kaddu bu mujj nga tàggatoo également waxtaan bi amoon na solo trop. jërëjëf Mal man bu may tàggatoo. Mm-hmm. ginnaaw bi ma la remercier en ah, remercier borom kër gi. jërëjëf damay sant. di gërëm koo xam ne ñun mooy suñu mentor ci politique. mooy kan boo nekkee Louga di jigéen mhm. xool aminte ay exemple ak fi mu jaar mhm. dangay xam ne ay valeur ba tey mi ngi am moom loolu la incarné donc ñi ngi koy gërëm di ko sant mhm. ndax dañuy wax feccum liir bu neexee yaay ji moo jàpp ci wagg yi ñun sur le plan politique certes am nañ ay prédisposition mais aminte bokk na ci ñi nga xam ne damay wax ne mooy moo moo parfaire suñu formation politique donc vraiment ñu ngi koy ñaanal. yàlla defal ko jàmm may ko may ko may ko may ko may ko may ko jàmm ak njabootam. Mhm. di jël dellusiwaat rek. Mhm. di wax waa Sénégal mhm. ne loo loo loo jënd njub. juba ko gën. waaw ñun dañuy woo man moo tax ñi bu may dégg ñu wax jub jubal jubal jubanti Sénégal yépp ci d'accord. parce que ñun ci boo xoolee ci suñu histoire xëy na malheureusement. temps bi permettre wu ko. mën nañ la joxe ci exemple nga xam ne ñun jub jubal jubante ci du lu bees quoi ci Sénégal ci lañ doon ci lañ doon moom dal mhm. sama nijaay nee na ñoom moom pare na. man bu ma sañoon ñu investir la Louga <laughs> man moom nekk nekkaguma ci fenn mais yow moom buñ la investir la Louga est-ce que du ma takk sama sama sama sama kii ñëw ñëw jàppale la de toutes les façon daal yow nekk nga un homme de valeur mhm. un homme de principe mhm. yaa ñu yar te xam naa ne dama am na amoon naa sax benn inquiétude ci régime bu bees bi mais comme ay genre yu mel ne yow bu dee ñoo si ne jàpp naa ne xëy na suñu bateau bii di Sénégal dina dem à bon port jërëjëf donc vraiment di di sant di gërëm mhm. euh, sàmm suñu ngor bi nga xam ne actuellement ñi ngi ñuy déglu à travers le Sénégal parce que le mouvement c'est pas mouvement boo xam ne dafa nekk Louga rek mhm. mi ngi partout dans le Sénégal mhm. an ñi ngi préparé di ñaan yàlla aussi suñu dëkk bi yàlla def fi jàmm. jërëjëf soxna rek soxna Aram Gaye Diop moo nekkoon également suñu kii Lamine maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay jox yow tamit nga tàggatoo euh, ci waxtu bi jeex na daal daanaka. Euh, voilà Mal jërëjëf maa ngi leen di sant ci invitation bi. Mm-hmm. di sant waa Sénégal. Mm-hmm. di ñaan yàlla lépp liñ fi waxtaanee rek yàlla na nekk ay yiw ko ni ma ko waxee woon. Mm-hmm. mais danga may may ma sant waa COPADEL. convergence patriotique pour le développement de Louga. parce que ñooñu lu ma def. dañ ma ciy gunge. ànd ceeg man maa ngi ko maa ngi ko sancee quartier bu ñuy wax jàmm gën parce que man jàmm gën laa juddoo. waaw ànd ak waa Payen. ànd ak waa Coxna. Mhm. ànd ak waa Kër Serigne Bara waa Grand Louga. Mhm. léegi nag ñu dugg ci biir Louga. Mhm. ba tey fii nu toll nii mais Copadal dafa nekk dafa am taxawaay bu bu jëmee ci Louga. ñi ngi ànd ak man ci reboisement yi. ñi ngi ànd ak man ci ci bàll dëkk ba ñi ngi ànd ak man. ci dem ci daara yi ñi ngi ànd ak man ci jàppale jigéen ñi Kopa de Louga maa ngi leen di sant bu baax jërëjëf jërëjëf Lamine Diop bokk ci Pastef foofu ci Louga également bokkoon na suñu gan donc comme ni ngeen ko xamee euh, soxna Aram nekk également sociologue waxtaane nañu réew mi ak euh, immigration clandestine donc loolu yëpp euh, ñoom la ñu dalaloon tey ji ci seen matinal matin bonheur di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne aussi yéen ñu doon topp suba ba tey comme ni ngeen koy defee chaque matin di leen jaajëfal bu baax leen ñaanal yendoog jàmm di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro matin bonheur